jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet bu m TV Sénégal jaa jëf ci teewlu bi. mbokk yi si four 5M TV Sénégal dal leen nag euh, jàmm ci seen seen euh, bi nga xam ne saa bu nekk rek yéen a fiy toppee la nga xam ne moo di xibaar. Cheikh Bara Ndiaye ak ki nga xam ne rek moo di Mara mi nga xam ne rek ñëpp ràññee nan leen lool ci réew mi di Sénégal moom Cheikh Bara Ndiaye ak ki nga xam ne rek moo di Mara ñoom ñaar ñu ànd di amal la nga xam ne moo di seen ab campagne di jàppale ki nga xam ne moo di basiiru Diomaye fay ak kii di Ousmane Sonko waaye itam jamono ji lu metti lañ jot a dund ci la nga xam ne moo di campagne bi ginnaaw nag seeni oto yoo xam ne dañu ko daal di sakaasi daal di ko yàqati ba mu yàqu yaxeet ginnaaw bañ demee fa nga xam ne moo di ca diwaanu daaru muxti ngir rek wéyal la nga xam ne moo di seeni campagne waaye ñu gis ne dañoo yàq la nga xam ne moo di seeni woto toj la nga xam ne moo di eh, vitre mu nekk itam loo xam ne jamono ji ñu ngi koy ñaawloo ko naqar moom Cheikh Bara Ndiaye ak ñi mu àndal ku ci mel ni ka nga xam ne moo di maaraña sani ki démb foofee nga xam ne moo di ca diwaanu Darou Mouhty nag dañoo sakaase seeni voto ginnaaw campagne ba nga xam ne rek ñu ngi ko doon amal moom Cheikh Bara Ndiaye ak ki nga xam ne rek moo di maaraña sa mu nekk loo xam ne nag jamono ji Sénégal yu bare bari ñu ngi koy ñaawloo ko naqarloo ci réew mi di Sénégal itam mu nekk loo xam ne lu ñaaw la ci ab dégg-dégg ak gis-gis gis. pour ngeen xamaat rek bu gis ngeen oto Cheikh Bara Ndiaye moo nekk nii Cheikh Bara bi la nekkoon Cheikh Mara Niass nekkoon ci kaw oto bi nii gis ngeen ko bi gars yi dañu attaque fii nga xam ne moo naanu moo ci duwaanu daaru mux ci oto presse tamit la même chose gis ngeen oto bi tamit dèjà niñ ko def gis ko yéena ko bopp ah ko gisal seen bopp